dal leen ak jàmm mbokku internet yi ki fi àdduna doon mbamb ngir mbirum phobie di Seydina Fall bu Gazali yoon may na ko liberté provisoire maanaam bàyyik néganiku xibaar bi mi ngi siiw ci àllarba ji nii ñu génn ci la yoon daal di jébbal ki nga xamante ni nii moom mooy Seydina Fall bu Gazali ñu ko doon toppee ci lu wàll lu jëm ci phobie may ko liberté provisoire maanaam ñu bàyyi ko bàyyik néganiku waaye ñu leeral nii boobulee bàyyik néganiku teggiwula benn yoon li nga xamante ne nii moom la yoon teg ci ndoddab ki lay di Seydina Fall bu Gazali naam sax moom député APR ba woone di Seydina Fall daanaka mën nañu wax ne ëllëgëm dara leeru ci ginnaaw bi ñu ko placé sous mandat de dépôt dalee ko ci euh, ñaar fukk ak ñaari fan ci pa novembre atum 2019 Bougazelli yoon mu ngi koy toppee association de malfaiteurs maanaam bokk ci kuréel guy def ñaawteef corruption lu jëm ci wàlli mbuxum ak guerre trafic de faux billets de banque maanaam lépp lu jëm ci wàlli luubal alal ju lewul googulee alal nag yoon mu ngi ko xayma woon ci lu toll ci fanweer ak jaar ci ay milliards sunu xaalis boobu le dossier mu ngi ca loxoy doyen des juges d'instruction bi léeg di Samba Fall mbir yi ñu leen limal moom moo taxoon na ba yoon dal di teg loxo ki nga xamante ni nii moom mooy Seydina Fall Bougazelli mujj ko yóbbu ca kasa bu Rebeuss ginnaaw si nga xamante ne jamono ji jot na fa def ci lu toll ci juróom-ñaari weer ay avocat am jot nañu déposé lu jub ci lu toll ci ñetti yoon di demandé maanaam di ñaan ngir yoon mën leen bàyyi bàyyi néganiku waaye ñaare yépp daanaka dañu ko dañu ko ko bañal la tey ji yoon nangul na ko ko ci àllarba ji tolloo ak ñetti fan ci weerum juin atum 2020 bi lee xibaar nekk na banneex lool ci Seydina Fall Bougazali ak ay ñoñam i waa këram yi ko doon xaar waaye donte Seydina Fall Bougazali mën na delluwaat ca këram firiwul ne dafay xare ci li ko yoon doon toppee na am sax fi mu toll nii ba tey moom Seydina Fall bu Gazali mën nañ ko tëj kaso giiru dundam li ko waral mooy li ko yoon di toppee dafa bari te diis loolu waaye ànd ak loolu mënuñu am xel ñaar ci ne Seydina Fall bu Gazali taxul ci mbir mi ndax daanaka bi ko yoon di togg rek loxo daf ko jàpp en flagrant délit maanaam loxo ci poos dañ ko fekk ci mbir mi wérlu kenn mënta weddi na am bu Gazali takk na ci ripp jamono ji bi mooy ne liberté provisoire bu Seydina Fall Bougazelli ndax du mujjee nekk liberté définitive maanaam bàyyi néganiku gi ko yoon bàyyi ndax du mujjee nekk bàyyi goo xamante ne nii dara du ca topp maanaam Seydina bu Bougazelli day pare ci mbirum yoon li dëggal gile gént nag mooy ne dañu seetlu ne ci réew mi lu bari ci ay personnalité yu jot a jàkkaarloo ak yoon ba ñu teg leen ay daan saay suñu jotee ba am li nga xamante ne moom mooy liberté provisoire bàyyi néganiku gi daanaka fa la ñuy jaaree dal di libre mën nañu wax ne néew na loolu ci ay autorité wala ay personnalité yu mag fii ci Sénégal yu am liberté provisoire ba noppi dal di delluwaat ca kaso ba liilee bokk na ci li tax ñenn ñi yaakaar ne bilee bàyyi néganiku ab tikke la boo xamante ne dafay may kilee di Seydina Fall Bougazelli liberté définitive lu ci mënti am waa Tactic TV dañ leen ko toppal ngir indi leen ci ay leeral jërë ngeen jëf